pour terminer ma ñëw ci sur le cas de Ousmane Sonko euh, damay ñëw pour liggéey si rek benn waaye daal di may dab. daal di lay dab daal di may dab ne ma dama lay yóbbante comme man mënu maa si télé bi. Mhm. mais dañ lay yóbbante si Ousmane Sonko. nee ko dañoo soxla mu am wér ak kàttan soxla ko mu xam ni que ñun ñi ànd ak moom bu nekkee ci jàmm ñun ci la nekk ci jàmm. mu ne yóbbanteem la beneen bi tu as raison c' est des formes de lutte ce n' est pas la première fois ñu def fi ay grève de la faim sama maam Abdoulaye Wade a fait euh, grève de la faim euh, Karim Wade il a fait grève de la faim les gens oublient ba boobu sëñ Sidi Mokhtar bi nekkoon xalifa général des Mourides moo yabal doomam mu ñëw indiloon ko mbiskit ak euh, ndoxu zam-zam yaakaar na jox ko ndigal ne ko na bàyyi li nga xam ni moo jëm ci wàllu grève de la faim bi et boobu tamit nañ ci seen de médiation waxtaan ci ba tey man jàpp naa ni weesoogul war nañ mën a def euh, médiation parce que bàyyi peut-être Ousmane Sonko ci yenn conditions yi sa ne sert ça ne pas à personne. Mm. parce que bu fekkee ni moom c'est un message qu'il envoie au monde en jàmbaar. Mm. c'est pas reluisant pour l'image du Sénégal. tu vas taper sur Google tu vas voir l'opposant au Sénégal écarté emprisonné en grève de la faim te du moom kese après on va se avec deux mots qui vont sortir. détenu politique plus grève de la faim et tey ki nga xam ne il est détenu nekk ci biir forme de pression la boo xam ni moom lay teg on a vu Pape Alé Niang sa santé s'est dégradée il a refusé euh, des soins il a tout refusé mais état bi du jël risque avoir un mort entre ses mains donc pour man ba tey war nañu mën a euh, am ay voies et des moyens yoo xam ni war nañu mën a alléger li nga xamante ni mooy détention carcérale bi y a d'autres conditions jàmbaar hier j'ai pas dormi je suis tombé sur une vidéo yaayu Pape Abdoulaye Touré Pape Abdoulaye Touré xam nga ko oui yaayam bi muy wax dafa jooy j'ai pas pu continuer la vidéo parce que yaay ji nee na dem na fii ñu wëttee sax ci hôpital bi moom mu jàpp ni en tant que yaay su xoolee doomam wax ak moom sax mën na ko convaincre mu bàyyi grève de la faim bi nga xamante ni dëgmal na ko lu mot fukki fan ak juróom ñu bañal ko pour mu agsi si doomam mu indi lekk ñu bañal ko mu joxe lekk pour doomam ay photom dafa waroon ci dëkk bi dañ ko dóor toj nañ bopp bi damm loxo bi damm tànk bi terewul ñu jël ko yóbbu ko pavillon spécial je crois que nag am na fu ñu toll on peut pas euh, dafay dem ba dafay nduru leneen ko day dem ba day day nduru leneen donc finalement euh, je crois que on pourra on devra faire des concessions Euh, l'État aussi doit laisser lâcher un ba tey fii ñuy continuer jàpp geeg bàyyi gi mu ngi gën di takkar si donc euh, je crois que aussi euh, ku bëgg sa réew aussi di nga bëgg jàmm sa réew jàmm si réew bi nag du yow yaa adversité politique warul nekk animosité waruloo yéene sa moroom sax toroxtaange wala nga nga ne naa fay wala naa jël bi dóor ko lii sama maam Cheikh Ahmad Bamba bindoon bataaxal benn buur mu ne ko xamal ni nguur gii nga jot dafa jóge ci ay loxo ñëw ci say tàbbi ci say ay loxo te ci yeneen loxo lay tàbbi. très bien asalaamaaleykum. Saliou Joseph euh, ñëw na itam ci euh, maa ngi koy wax léegi li xew ca Fass booy Fass booy nag euh, c'est un drame maritime bu nga xam ne def na lu toll ci soixante morts dañu xëy nag dégg fa intifada muy ndaw yu désespéré yu yu mer. Euh, doon manifester euh, vraiment taal fa service local de pêche alors loolu yëpp dafay c'est significatif am na lu muy lu muy lu muy tekki alors euh, situation immigration irrégulière moom Bougane ñëwaat na ci léegi kañ lañuy ñuy la fin de ce de de de ce phénomène surtout au Sénégal parce que tout le temps da dégg nit ñi naan la finalement amuñu sax pexe ci ci ci mbir mi c'est triste qu'au Sénégal li nga xamante ni moo war a téye sénégalais bi ba mu am yaakaar ci réewam ba nga xam ni moom la war a dundee euh, duñu ko ko jotal ci tàmbali rek may ñaawlu li nga xam ni mooy lakk googu ñu lakk service régional de pêche boobu noonu. Mm-hmm. mais dafa am démarche boo xam ni moom la ñuy jël gis nga tey boo demoon ci monde mareyeur yi ñii di napp. bu ñu lay wax souffrance yi nga xam ni moom la am. gaal dina napp jën ba ñëw. ñu tegg jën yi nga jékki-jékki ñu ne la responsable service régional bi ñëw na nangu na jën yi nee na jën yi dañuy tere ku ko napp xaalis bi nangu nanu ko ñu jël loolu yépp téye ko sa lox ci sa ñaq ak sa koom-koom pendant am na benn kuréel boo xam ne ay nasaraan lañ ñu ngi ci biir géeji Sénégal yi di napp loo xamante ni sunu moomeel la ñu jox leen ko ci lu yomb loxo bi nga xamante ni si dafa waroon a dem di daj ay coono ngir am tuur ñaxam ngir am lu mu yóbbu këram ci biir réewam nguuru réewam xañ ko loolu nangu jën yi mu nap nangu xaalis bi mu ci jotoon a jaay pendant temps jeune boobu tey nguur gi ko waroon a créer espace bu mu liggéeyee mhm. moo ko xañ loolu yépp bu ñu nee la licence de pêche yi dinañ génne nangam jox ko ay étranger pêche artisanale bi mhm. équipé wuñ leen joxuñ leen ay gaal bi ñu indee pirogue à fibre de verre yi ba ñu ko expérimenté ba tey liñ ci séddale ci lu ñu mën a teg bët boo ko doon xayma matul fukk ci biir réew mi boo ñëwee ba tey gaal yi nga xam ne dañ koy daaj ak di ko yatt moom la ñu yor matériel de pêche bi jafe naa am Hmm? ndaw ñi nga xamante ni si loolu lañu leen tàggate moom la seen i waajur doon dundee ñu xam ko tey jii boo xoolee secteur privé euh, nu ñu ko tuddee ci sax euh, secteur informel bi. Hmm. li ci ëpp te gën cee bëri doole euh, ci koom-koomu réew mi ci ñoom lay bàyyi ko boo leen structuré wul. Hmm. nga accompagner leen. jeunesse bi nga xamante ni ñoo dëkk ci boori ndox yi daan dundee li nga xam ni mooy napp gi tey bu ñu jëlee service régional yi poñe leen. suñu nappijee ba ñëw ñu ni la non lii dañ koy protéger nangam sangam dëgg la am na méthode yoo xam ni moom la ñuy protéger ndox mi am na euh, méthode yoo xam ni moom la ñuy protéger yenn espèces yi mais da ci tàggat ñooñu ba pare may leen ñu liggéey ci mais munoo koo jël tàggatoo leen ci xañ leen ko ba pare bu ñu duggee ñoom tëmb ba seen gaal yi sori ñu gis ab étranger boo xamante ni bokkul ak ñoom ci seen biir réew ëpp leen ci sañ-sañ loolu nguur gi moo war a jël taxawaay bu mat sëkk ci loolu ah. waaye nag munoo jël ñi nga xamante ni wax dëgg fa yàlla seen biir réew la ñu nekk yor seen nationalité moom dëkk seen biir réew si li nga xam ne moo xam moo am seen réew ci koom-koom sëñ bi nga di leen ko xañ ba hmm. pare jàmbur di ko jël ci seen kanam ci seen i bët ba pare loolu nag lëkkaloog à l' administration dans le euh, dans ce domaine euh, de de la pêche di leen di leen xoqatal bu ñu demee napp ak ni méttee nga daal di def fan wala fanaan ñaari fan ñetti fan gaalu mbàllaaw yu euh, mbàllaaw sax mën nañ ko def ci benn bis waaye fii tourne yi ba indi ay jën mee sëriñ bi service régional de pêche bi daal di ñëw xool ni la noo jën yi waru ko jàpp récupérer ko bu doon amoon na ñu ci jotoon a jaay ñu récupérer xaalis boobu noonu mm-hmm. léegi loolu fan lañ ko yóbbuwaat ak naka lañ ciy def très donc set jeunesse mm-hmm. dañu nekk di ko xoj ci biir réew moo waral tey jii ni jël gaal yi bari moo waral tey ji ñu ci baree bare amoon ci ay jumtukaay seen yaakaar tas ba ñuy dem di dugg Nicaragua. Mhm. te ñooñu mooy ñi am moyens yi. te l'État est là nos autorités sont là en train de regarder cette jeunesse se suicider di xool ndaw ñi ñuy xaru. loolu moom mooy waral tey jii nii ñaanuñu ko yàlla ay manifestation am ci dëkk bi ndaw ñi génn ci mbedd mi. Mhm. parce que seen boolu mu ñu kaay moo fees. désespoir bi implanté wu ci biir réew mi dafa doy waar te dara waralu lu muy ces autorités là. tout tout toutes les politiques développé par par le régime concernant xëyu ndaw ñi l'emploi de la jeunesse euh, euh, entrepreneuriat et tout cela ci biir bu président Bougane mu ngi ci dikk ci biir capital bi lañ ko yemale mais boo demee dans les profondeurs du Sénégal ci biir yenn gox yeeg goxaat yi mais nga laaj leen leen tey jii ban ban programme lañ ci tëral mais doo ko gis boo leen laajoon ban bilan lañ ci def ci xaalis biñ ni moom lañ ci injecté ñan lañ ko jox ak bañ leen ko joxee liggéey bi fan la toll ci ñoom du ñu la ci génneel pikini mi kon na évaluation bi yomb na mm-hmm. dañu jël suñu xaalis jël suñu nguur tayle ko ci benn wàll ba pare di xañ waar réew li nga xamante ni mooy seen moomeel li ñu dese bariwul dañuy def tour euh, de table rek président